Euh, Kouthia ñu gis la nga rangale ay trophée trophée yi gisuñu si trophée bi nga xamante ni moom la ñu waxoon ci FESPACO bi. ah di xanaa yow sa bëri dafa lu waral lool. mais addi xanaa yow da nga bëgg laaj bi. ah kon final. après <laughs> bàyyi nii. <laughs> kon cooli cooli kon ñëw na xam nga ñetti fi nekk. Ah. dama bi nekk droite. Ah. wan nekk gauche wan ko bi nekk au milieu ko yow ah. wan ko internet bi. coolaa ngi nii ak sutura baa ngi nii. celebrity lii de indi woon cooli. ñu naan ay Kouthia waxloo na Youssou Ndour juumloo na Youssou Ndour Youssou Ndour yàkkamti nekk ci rajo bi di félicité Kouthia ci loo xam ne gisu ko awa Awade ñëw toog fii ci benn émission bu ñu naan midi xom midi plus xom midi ko fa moom ci boppam mu daal dafay ñëw wax na leen Kouthia dégg naa turam ba tey gars yi weddi waaye nag prix bi man fekki ma ko moom ñëw moo mujj ñëwal boppam Burkina la jóge ñëw ba Sénégal fekk si ma te mujjumaa dem kañ lañ ko indi ki indi mooy Roxoye Ñaa actrice bu mag ñëpp xam ko maa waroon dem ma am problème mu vol ak problème coordination deuma hommes mais sama tour est resté parce que ñooñu li taxone ñu nominé ma dara c'est pas parce que mon absence wala ma présence mais dañ ko def parce que dañu am ay preuves yu c'est un YouTube xol Kouta il commence à évoluer de jouer li nga xamné mom moy information internationale ci affaire coup d'état Alpha Condé fait ci maille à mon Sénégal 8 mars Kouta est constant et actuel ñu le seul le meilleur humoriste africain bo xamné du lundi au vendredi dañ koy chaque jour mu def lu morom 365 jours sur l'année Kouthia daf koy liguer hors les dimanches parce que du lundi au samedi couta caa média samedi matin de 9h à midi manquera ci humour lundi du lundi au vendredi maa ci télé dimanche def humour donc dimanche rek le coup de dimanche best of moi am tu revois côté du lundi au lundi 365 jours sur 365 jours dama koy